Moustapha na nga def. maa ngi sant yàlla maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. waaw non c'est par rapport ak euh, li nga doon wax sànq ne da nga ci bëggoon intervenir mooy euh, coow li dox ci diggante Mansour Faye Ousmane Sonko. Euh, mhm. c'est vrai que depuis juillet kenn déggu ci benn actualité. gannaaw bi nga amee mhm. coow ak Moustapha Cissé Lo. tey mhm. coow lii man dama xamul exactement lan lan moo ci concerné mu mel ni kon cellaaral googee da nga cee jugee. bëgg mhm. euh, jëlaat coow li am loo ci wax ma bëggoon xam li ko mhm. waral waaw li ko waral mooy comme ni nga ko waxee maa sabab lu wax waa daanaka depuis ñetti weer kenn dégg moom wax ni ma koy faral di waxee man su ma sañoon sax du wax mais parfois nag euh, situation ak actualité bi moo lay euh, moo lay pousse si si nga wax donc ñàkk wax bi du peut-être ñàkk trop trop lu ma wax mais lu si doon rek dafa am nuñ koy defee donc lii nga xam ne dama ci sabab lu wax donc dafa nekk loo xam ne dafa ma yitteel mhm. te man dafa am ci principe boo xam ne dama koy doxee nguuru Macky Sall ak ñi ànd ak moom lu laal ma sàmba rek laal na ma demba donc comme ni ma ko waxee ñun ñëpp ci benn gaal lañ nekk gaal gi joowkat bu mag bi ki ci kanam di joow di chef bi mooy président Macky Sall donc ci li ma xalaat mën nañu ŋaay am ay ŋaayu suñu biir ñun. Mhm. ci suñu biir Benno suñu biir APR. Mhm. mais fu mbëkkante am rek ŋaayoo entre ku bokk ci njabootu Macky Sall njabootu politique bu Macky Sall ak kenn ci kujjante yi rek daf ñu war a ci kenn ku nekk. Mhm. rawatina nag su fekkee dafa mel ni moom yeneen ñaari ponk yu am solo ki ko seq. Mm-hmm. ak Ousmane Sonko di Mansour Faye suma xarit la mm-hmm. xaritu politique du xaritu nguur xaritu démb la mm-hmm. suma digganteeg moom jege trop mais bi jigéen am solo dama dama xam fekkee saytu xam ni dëgg la nekk parce que nag Mansour euh, lu mu nekk nekk suma xarit li mu wax su wéeku wéekuwul ci dëgg tamit jaraluma euh, may ànd ak moom ci lu dul dëgg donc daanaka considération yooyu mu la limal daal moo motivé ma ne nag damay wax. kon su ma déggee sa wax mooy euh, wax moo jot moo tax nga na wax te it. Mansour sa xarit la. waaye day mel ni dang nga ci jubloo dëggal waxi Mansour Faye yi mu jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko euh, lan nga xam ci mbir mi. Euh, Moustapha loolu kenn werantewu ko. gis nga Mansour li mu wax. mais lu ñu bari xam la. Mhm. ñu gis nga daje boobu am entre Mansour Faye Cheikh Issa Sall ci jamono mi xam ne Mansour mooy délégué général à la solidarité nationale mhm. Cheikh Issa Sall bi nekk tey directeur de l' agence de développement municipal nekkoon secrétaire généralu DGSN mhm. ba pare di naataango Ousmane Sonko ci njàng daje boobu ñett ñi ñoo seq mhm. Mansour Faye Cheikh Issa Sonko te Ousmane Sonko moo ko sabab te sabab bi li mu woon ci lenn loo xam ni mm, secret de polichinelle la ñëpp xam nañ ko digganteem ak Karim Ndiaye nekkoon ancien directeur u cadastre yoon daloon ci kawam ci parce que liñ ko tuumaloon ci ay njuut njaaj ci mbirum suuf te tey bu njaay boobu nekk nag lu ñuy wax parrain ¿eh? protecteur mag kóllëre eh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko jaar ci Cheikh Issa Sall bi nga xam ni naatoo ko jàng mhm. ba pare nekk ci Mansour pour mu pour ñëw gis Mansour pour que wax ak Mansour mhm. pour Mansour wax ak président de la République président de la République intervenir wala gam loxo magistrat yi nga xam ne di doon atte tey bu njaay loolu moo sabab daje boobu deux mille treize mhm. Mansour wax ko yàlla mi nga xam ne dafa bare doole te yàlla bugul ñuy njuuj njaay ak wax yenn affaire mbir mi ci ni muy déroulé dinañ ci ñëw ci kanam. Mhm. fu ni li Mansour wax mooy dëgg Sonko la mu weddi <laughs> ni amul moo ko def te looloo am. alors monsieur le ministre euh, exactement euh, bi nga xamee ni président de la république yëg na ne euh, Ousmane Sonko mi ngi sàkko woon jàppal tànk Tahibou Ndiaye lan moo nekkoon réaction moom président de la république. mais gis nga tontu boobu comme li tubaab di wax rek ça coule de parce que Macky Sall quand même kenn du ko fekk wala nga koy natt ci. Eh, yoon magistrat yi di atte nit muy dugg di damm loxo magistrat yi di leen wax bàyyi leen donc loolu jarul jarul laam-laamee eh, <laughs> bañ koy wax président man fekkewu ko mhm. bañ ko koy jotlu fekkewu ma ko mais réaction man eh, xam naa loolu parce que Macky Sall defe na amul ci ñun mhm. ku am fit ñëw ah ko wax duggal ci projet muy projet bu concerné ku nekk si ñun wala muy projet boo xam ne dafa concerné ci keneen koo xam ne sax Euh, daanaka nekkul ci ñun wala leneen loolu du jikko Macky Sall mhm. alors euh, est-ce que dafa am benn enrichissement bu ñuy wax nu ñuy waxee diggante Mansour Faye ak ak euh, euh, Ousmane Sonko enregistrement mhm. boobu te Ousmane Sonko wax ne amul. Mhm. yow lan nga ci mën a indi ay tegtal. waaw laaj bi nga laaj. ah. am solo parce que coow lu su bare parfois dañuy nëxal xelu nit ñi. ndaje bi Mansour fay am te Ousmane Sonko sabablu ko mu am ko ak moom Cheikh Issa Sall fekkee ko mhm. te gis ngeen fo ni Cheikh Issa Sall wax na confirmer loolu ndaje boobu enregistrement amu fa mhm. kenn enregistré benn enregistrement amu fa Mansour Faye enregistré wul Ousmane Sonko Cheikh Issa Sall enregistré wul ah euh, nu mu tuddati Ousmane Sonko mhm. te li ma si xam tamit ba léegi Ousmane Sonko enregistré wul kenn si ñoom ñaar. Mhm. enregistrement am na. waa mais mais kon ban enregistrement la Mansour Faye di wax bu dee ñoom seen waxtaan boobu amul mhm. kenn ku ci enregistré sa morom. Mhm. mais enregistrement boobu ba Moustapha ah. lu ci ndaje boobu la am. ok élément sonore boobu lu tubaab di wax une preuve matérielle irréfutable. te mi ngi diire suma ma juuma fanweeru seconde mhm. ah am na mhm. buy feeñal dëggal li Mansour wax waaw mhm. voilà loolu moom mën naa ko firnde léegi ñun ñun lii nga wax nii ci lan lañu mën a sukkandiku euh, pour mën a xam ni enregistrement boobu lu am la ah mais soo bëggee mën naa la kat mën naa la ko tegal nga déglu ko enregistrement bi ci boppam waaw mën naa la ko tegal nga déglu ko soo bëggee sax après ma jox la waaw après nga jox ma ko. maa la koy tegal nga déglu soo bëggee. d' accord est ce que mën nañu xam euh, enregistrement bi. <laughs> mais sëñ Cheikh. sëñ Cheikh c'est très ngeen garaawee. mais sa wax na man maa ñëw sukk di ko sukk yëpp pour ce que eh, eh, quand a qui va qui de moi ton patron va voir et c'était avant que je politique mais day na waar quoi xamoon ni nag gars yi mën nañu wàcc à ce niveau là. mais comme tu es le témoin tu vas <laughs> tu vas faire le témoignage ak Mamouni. monsieur monsieur le ministre. waaw. doo doo ma baal nga tegalaat ma ko. <laughs> mais <laughs> mais sëñ tey saa yi dañ koy kenn affaire nii ngeen garaawee mais ça va man maa ñëw sukkandiku si si yëpp pour pour demander un truc. toi tu étais présent et puis toi qui va qui qui a qui va qui a beaucoup insisté de mettre ton patron au pouvoir et c' était avant que je m'engage en politique c' était en 2013. mais day na waar quoi xamoon ne nag gars yi mën nañu wàcc à ce niveau là. mais comme tu es le témoin maa <laughs> ngi faire le témoignage ak Mamouni. ok euh, mën nañu xam audio bi ban ban date la woon. Euh, Moustapha. Mm-hmm. audio bii nga dégg mu leer. Mm-hmm. xam nga waxatul ne rencontre am. na am na te 2013 la. Mm-hmm. te Cheikh Issa Sall mooy témoin bi. simplement euh, li ci Mansour wax def ko te science woon ne affaire ni la ñu gravé te ñeme nañ yegg fii. te beneen ba ma ngay wax ni non moom du moom moo rencontre bi. Mansour ko sabablu xam nga loolu wute na ak li mu doon wax ni Mansour dafa kàcci hmm. rencontre musul am ma ngay wax ne du moom moo sabablu rencontre de Mansour mais su Mansour sabablu rencontre bi Ousmane Cissé 2013 la ko doyee du Ousmane Cissé bi ñu xam 2014 du 2015 du 2016 du ba mu nekkee député 2017 du bu mu génnee présidentielle donc xam nga leer na léegi nag ma dellu si laaj bi nga laaj. Hmm. enregistrement bi euh, Moustapha amul fukki fan. Hmm. amul fukki Ousmane Sonko moo enregistré boppam. Mhm. ma leeral. Mhm. ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre deux mille vingt. Hmm? Mhm. ci la Mansour Faye dem ci benn télé bu ñuy woo 2STV fa la waxee déclaration bi fa la affaire bi. ni Ousmane Sonko sabablu woon na ci at yooyu gisanteeg moom waxtaan ak moom pour ma président Macky Sall intervenir ci dossier Tahirou Ndiaye. ba Mansour defee déclaration vingt neuf septembre deux mille vingt Ousmane Sonko tiit yaa ngi may suivre mhm. allo maa bu baax baax bi mu tiitee li mu njëkk def réaction bi dafa jël téléphone am woo Cheikh Issa Sall jotu ko mhm. mu woo ko ba sonn jotu ko bi mu talaata boobu bi ñu toogee ba treize vingt neuf une heure bu bi mu paasee ñaar fukki minute ak juróom-ñeent ci la def audio bi envoyé ko Cheikh Issa Sall nga mm-hmm. xam nga ku xam Ousmane Sonko ak kàddoom ni mu dëgëree mm-hmm. ak ni muy wóoroo kàddoom xam nga lii muy waxee fii jànnaxe na mm-hmm. mais donc ñëpp mën nañu amaa amateur la def yàlla su lay weer ah? doo xam ci affaire yi di jógee donc ma baamtuwaat wax bi dafa ñëw septembre deux Mansour Faye def émission boobu wax li mu wax bi mu ko waxee Sonko dégg mbir mi tiit. Mhm. première réaction moo naataangoom ci njànge ah. Mhm. li ñuy wax camarade de promotion Cheikh Issa mhm. ki mu jaaroon pour dem gis Mansour woo ko li ñu ko dégg nga ko ci ci ci audio bi mu ne ko daal ndeke na ngeen waa après ni ngeen garaawee. xalaatuma woon ne dinañ yegg si fii ah. d'accord rencontre bi yow yaay témoin bi 2013 la woon. Mhm. ah mhm. te Mansour moo ko sabablu woon donc xam nga donc Sonko wax na fi weer boppam ni rencontre bi am na te loolu indi coow li nee na Mansour Faye day kàcci. donc le vingt neuf septembre deux mille vingt. Mhm. weer bi passé. ci la affaire bi am octobre. donc mën naa ni fan la am. donc moo moom moo enregistré boppam audio envoyé ko Cheikh Issa Sall mi directeur u ADM. d'accord wax bi donc leer na frank laayu na. léegi monsieur le ministre man li ma jaaxal mooy son bii Ousmane Sonko moo ko def. envoyé ko Cheikh mhm. Issa Sall yow nga jot ci. ba pare nga mhm. nga nga ñeme ko dugal ci euh, euh, média bi. est-ce que mhm. yow euh, ragaloo ni ay procédures judiciaires mën na laa topp ndax yi fi jàmbur la. waaye man ni Ousmane Sonko waa Pastef seen i ñooñ ñi ñu àndal seen tribunal Facebook la te man loolu ragaluma ko mhm. mais plus sérieusement mhm. suñu ma plainté mhm. mais c'est le risque du métier entre guillemets politique lañ nekk nañu plainte mais man je préfère risquer une plainte que dëgg bi feeñ parce que sénégalais yi dafa war doy foo yegg foo xam ñuy xool toujours ci dëkk bi du ñu xool walla ñu atte ku dóoraate sauf yow bëgg la yedd mhm. et puis Sénégal dafa am importance du lu ñuy fooye mënuñu fi nekk ay ay politiciens di saax saaxe xelu Sénégalais yi ay magum jëmm di di woote maa jub maa lii maa lële fekk ñoo gën a dëng onze ay gën moo tax comme ni nga ko xamee Mansour sama xarit la mhm. d' ci démarche bi mu def Ousmane Sonko faut utiliser les mêmes armes utilise pour duñu sosal di yàq suñu der di wax loo xam ne guddi ak bëccëg moom ak ñu niroo ñoom wékkuwul ci ñu dëgg audience bi am na su fa yemoon xam nga li lu tax yàlla subhaanahu wa bare doole ah mhm. su mbir mi yemoon ci li Mansour wax ala kulli aale xam nga nit ñi lu ñuy wax mhm. ak kàddu Mansour la ak Cheikh Issa Sall kàddu Sonko at bu leer du fa am mais Sonko yàlla moo ko nattu bi waxee loolu mhm. mu jànnaxe tiit jéem a jot Cheikh Issa jotu ko mu enregistré vocal envoyé ko léegi nag bon xam nga journaliste bu double politique bu mel ni man ah mhm. euh, kenn du ma laaj li nga yor foo ko jëlee <laughs> kenn duma ko laaj mais li ma yor est-ce que invention la est-ce que du invention ok du invention Sonko mënu ko weddi mënul weddi ni moo yónnee bataaxal ci ay kaddu ñu mu enregistré moom moo ko yónnee Cheikh Issa Sarr ci biir bataaxal boobu ah. Mhm. mu feeñal boppam ni audience boobu am na en deux mille treize siège yu DGSN moom ak Cheikh Issa Sarr maintenant nag euh, muy ñaxtu man euh, maa sabablu woon wala sabablu wu ma. Mhm. loolu soxlaalu nit ñi xam na li soxlaal nit ñi. Mhm. Sonko day woote loxo yu set. te ñun xam nañ ni ay loxom daa fees. Sénégal mm-hmm. dafa bari ñoo xam ne di dañuy woote loxo yu set te seen loxo daa fees te leen ci fees ah lu ci bare soo ko saytoo mu ayib day woote ni moom amul benn musu vertu la dafa woote ni Mansour Faye li mu wax du dëgg mm-hmm. ah mm-hmm. Mansour nag su ñun la bokk d'accord soo ko tuumalee ah euh, ba ñu dem ba yàq dem doom Mansour du kilifa Mansour tekkiwul dara parce que su waxee ak yow mhm. da lay enregistré Mansour enregistré wul kenn Sonko moo jël vocalam enregistré ko ko man nag jot naa ci loolu stratégie ay yónni yu seeg ay conf Sonko dafa amul sax sama gis-gis Sonko dafa amul solo booy conférence de presse di ko tontu am na lu mu def mhm. weddi ko bind bataaxal xam nga ñu ko effacer bataaxal yooyu ah. waaw mais Mansour waxul nga am firnde boo xam ne moom day feeñal ne moom moo waxul dëgg nga génne ko léegi conséquence yi si am comme li tubaab ba ak yéen que pourra parce que man dama engagé wu ci wetu président Macky Sall ah. Mhm. donc euh, engagement du lu neex rek mënuñu engagé boo xam ne lu neex rek tey maa ngi directeur général Soleil ah. Mhm. à parti bu neex la ah. mais tamit su ma waree tax ci xeex ci sóobu ci xeex Macky Sall dama ciy tax a waaw waaw sinon su fekkee ma dem nag bu mënatuma loolu ah. Mhm. bëgg nekk ci wetu Macky Sall di bànneex bi rek yu baax avantage yu baax su ma waree takk su ma su ma naree ba yegg foofu ah. Mhm. loolu pour man sama gis-gis joxuma leçon kenn sama gis-gis du xool. waaw mais monsieur le ministre dafa am lu ñu seetlu mooy. dafa mel ni yow dafa am ay compte personnel yoo bëgg rek la ak Ousmane Sonko te it sax dafa mel ni yow parti bi xeetu justifié justicier nga fa euh, yaay yaay régler problème yi yaay yaay xeex xeex bi. la lan moo dox sa diggante Ousmane Sonko ba mu mel ni da nga ko mere. non euh, Moustapha nit euh, koy mere ah. dafa fekk ngeen nekk en contact. dafa fekk ngeen seq dara di ko xëccoo. Mhm. mais mais xam nga Ousmane Sonko moom daf ñu noonoo xam nga noon ak adversaire du benn. Mhm. noon ak kuy kujje kujjante du benn. moom daf ñu noonoo. comme ni ko waxee rek moom lim ñu yéene mhm. ah mooy bis buñ fi jógee mhm. bis bu àpp Macky Sall jotee ñii ñu tëj leen kaso ñii ñu yóbbu leen ci peloton fatal leen ñu dee. Hmm. man yé moo ko wax moo ni président ancien président Sénégal yi tey dina war a fusillé moo ko wax kooku leer na weddi wu ko moo ko fi wax. Hmm. donc ancien président Sénégal mooy bis boobu ñoom bis bu suñ jotee ci nguur te ancien yooyu fokk Macky Sall jot ci donc yeneen ñooñu Macky Sall yi xam naa leen fatal peut wala peut être dinañ ci am ñu ci fetal mais li ci leer ñeneen ñi kaso donc moom daf ñu noonoo teguñu e man Ousmane Sonko talu ko ba koy noonoo sekkuma moom mais c'est-à-dire xam nga fi ma wutee li ma li ma melul ak Ousmane ci PREDES su ma juumul te sama xel naxuma defe naa six cent soixante quinze mille sénégalais woteel nañ ko février deux mille dix neuf mhm. ñooñu seen choix dama ko respecté ok mais ñun suñu candidat président Macky Sall deux millions cinq cent vingt cinq mille Sénégal Sénégal ñoo ko falaat cinquante huit pour cent mhm. moom mu bëgg respecté million six cent soixante quinze mille yooyu seen kàddu baax na mhm. mais deux millions cinq cent yi seen kàddu baaxul foofu d'accord ma faak Ousmane Sonko te koo xam ne républicain nga respecté nga démocratie respecté nga état mënoo ci d'accord ak mënoo ci d'accord moom ma d'accord ak Ousmane Sonko ah. te mhm. ni représentation nationale mooy assemblée nationale. ah mhm. lu ëpp ay téeméeri quelques députés yu fa nekk moom mhm. rek moo fa baax te pourtant députés yooyu fa nekk ñu si bare l'écrasante majorité quatre-vingt-dix-neuf pour cent peut-être ah dañ leen élire si élire bu jaar yoon moom lan lañ ko élire plus fort reste ay desit desitu kàddu lañ ko lañ ko fale moom moo taxaw si ñëpp dégg ko mu ni ñoo ñooñu nekk assemblée defoon commission xaw ma dànk lan di ko woolu c'est de petits députés corrompus qui ne savent rien de la conduite d'un État je pense que Sénégal yi suñu falee seen i député ah mm. yow nga ne da ngay joxe exemple danga bëgg réew mi taxaw tey ni ñi c'est de petits députés corrompus saaga woo député ñi leen fal nga saaga donc comme ni ma ko doon waxe fii yaakaaruma ni xëccoo réew ah bëgg nekk président jar na ngay taxaw di wax suba ancien président euh, <coughs> sénégalais yi. Abdou na lu bare. Abdoulaye Wade mérité na lu bare Macky Sall mérité na lu bare et puis fi may jeexalee ah. gis nga Moustapha. Mhm. politique ak ambition. Mhm. jarul yëngal réew. Mhm. Casamance. stabilité ma. dafa am solo. stabilité euh, Sénégal dafa am solo Casamance. ba alhamdulilah ñu laal bant. jàmm dellu si waat ne jàmm bu fragile mënoo mënoo ko mënoo ko politique donc dafa am man aw ma noonoonteeg moom. Mhm. mais ni muy doxalee. Mhm. te puis xam nga ñoom dañuy dem seen bopp ci ci waxin. Mhm. ne ay patriote la mais gis nga tout bon patriote ah. gis nga le caractère indivisible de son pays ça doit relever du sacré. kenn du fooye loolu donc man dafa am ponk yu ma d'accord loog Ousmane Sonko mhm. ah euh, du wax katu dëgg benn du wax katu dëgg prouvé nañ ko à plusieurs reprises bi euh, la dernière fois mais une des fois koy prouvé respecté wul état respecté day day génne ay mbuutu état am lim la mhm. respecté stabilité bi boobu c'est un de de de de de au rabais. mais même si sont des patriotes. Ousmane Sonko opposant la aussi comme nekkul seen parti aussi vraiment mënut a noppi. ci non non mais opposant mhm. opposant mhm. la. dëgg la ki nekk au pouvoir sénégalais la. xam nga dafa am Moustapha mbir yoo xam ne ah. Mhm. moo ñu dajale. moo nekk au-dessus de tout. moo nekk au-dessus de lépp mooy la république l' moo nekk au-dessus de lépp ak gis nga caractère indivisible du Sénégal c'est-à-dire caractère stabilité Sénégal ah mhm. euh, jàmm xam nga même julli mhm. Mhm. julli jaamu yàlla waaw xam nga ci gën a fo kawe la bokk dëgg la màggalu Tuubaa xam nga du ay caaxaan dëgg la dem sargal sëñ Tuubaa dem gàmmu ji tiwaawoon jour bi yontu bi sallallahu alayhi wa gane adduna xam nga lool du du du dëgg la xam nga dem euh, nu mu tuddati pèlerinage chrétien. Mhm. dem mees même si ñi nga xam juuñu l'islam di jumuñu euh, cré chrétien bi ah. Mhm. ñi dugg ci bois sacré. Mhm. animiste yi mais loolu yëpp balaa nga koy mën def. lan lan mooy lan mooy li ëpp solo jàmm am fan la ay bal di tàkkee nit di julli fan la ay bal di tàkkee nit di gàmm wala ngay màggal. donc dafa wax xam ne kenn waru ko fooye politique warul justifier que Ousmane Sonko nekk fii di manipuler ay affaire Casamance di toog di ay Casamance Macky Sall bugg leen mais ni Casamance dafa bokkul ci Sénégal voilà donc yooyu mhm. c'est des trucs fondamentaux yoo xam ne d'accord ma ci mais waxuma la sax man awma en bu mais dama amul sax jotu enante ak Ousmane Ousmane Sonko parce que y a aucune may enante moom simplement en est en démocratie euh, il faut il faut débattre argument contre waaw mais li ma wax moom ci ay preuve Ousmane Sonko du benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon du fukk yoon la wane ni moom du wax kutu dëgg. d'accord bon loolu moom xam naa ne dama lay bàyyi moom dana la ci tontu war a mbokk euh, ay ay camarade ay militant am ci Facebook bi moom xam naa ni. loolu ragalu moo ko parce que xam nga ñoom seen tontu xam naa nu muy demee saa mu mujjee wax ci ñoom ah. Eh. am na benn ñoñ bu mu àndal saaga na ma fi ni man ab xaj laa donc su ma saaga ba dëkk bi lóor tamit loolu loolu loolu yëngalu ma. d'accord. mais monsieur le ah ministre loolu loolu loolu yëngalu ma. d'accord man loolu mooy sama appréciation bi mu ci am. Euh, kon d'accord d'accord monsieur le merci ah, kon maa ngi lay remercier bu baax a baax. ma c'est moi qui te remercie. voilà jërëjëf. ah